aspect bu xaw politique parce que président Sall euh, daf tam comportement bu jaaxal ñu bëri ñu bëri jàppoon nañu ne vraiment bu lu xew mel ni amee autant de doomu Sénégal di dugg ci gaal yi di dee di des ci biir réew mi dina ci am taxawaay taxawaayam du ci du lu ñu lu ñu ràññee tey lañu gis rek ci ci communiqué conseil des ministres mu wax ni voilà dina taxawal benn conseil boo xam ni dina dina dem ci insertion ak emploi euh, rattaché ko ak palais de la république ndax jàppaloo ni de yu mel noonu yéex na ak comportement am ci askan bi nga xam ne ñi ngi ñi ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi te ñëpp doon ay doomu Sénégal ñu ci bari. drame la maanaam xale yi dee ci géej gi ngir dem Europe. Mhm. drame la drame national la. Mhm. bépp doomu sénégalais da koy naqarlu te jàpp naa ne képp ku am. tuuti sentiment au-delà de responsabilité war nga xam ne problème la pour le Sénégal problème mu Sénégal nag kenn moo ji war a jiitu ci faj ko mooy président de la République parce que moom lañu jox suñu lépp moom la ñu fal pour mu nekk président euh, nit ñi ñu ngi tuddee Barça ak Barsaq mel na ni maanaam bukki bi màttoon président Ablaye Wade moom mag màtt tey président Macky Sall ay xale nekk ci réew mi dem ba jàpp ne seen tekki ci bitim réew rek la mën a nekkee loolee dafa poser ay problème ci suñu société. ndax loolu du échec ci président Macky Sall. ah dégg foo laa doon yegg si suñu réew. bu loo xam ne 2006 la xewoon ñu ñëw bu 2020. non du 2006 rek c'est bien avant donc je veux dire je veux dire xale yi dem di tukki waxuma rek jaar ci géej gi bu kenn jàpp ne. ñiy dee ci géej gi ñoom rek la. Ah, am na ñoo xam ne depuis ñu ngi koy wax ëpp na ay at ñu ngi dee ci désert bi di jaar fii di dem Libye di dee di jaar fii Mauritanie dem jëm dem Maroc nekk ci conditions yoo xam ne souvent y a des morts loolu c'est un drame laa wax national. échec la pour suñu réew que suñuy doom toog ba seen réew amuñu fi yaakaar ñu perdre espoir ba ne dinañ ko wuti feneen par ak dee moom lañ ko yemaleel. loolu dama jàpp ne c'est un problème sérieux boo xam ne responsabilité wu état du Sénégal moo ci jiitu. donc échec la ci politique emploi wu président responsabilité état la moo ci jiitu ak politique emploi ak beneen politique total globalement l'état du Sénégal est responsable de cette situation l'état du Sénégal président Macky Sall moo nekk ci bopp bi. moom moo am responsabilité lépp lu dal ci doomu Sénégal mu d'abord def bu nekk du ko dal. mooy première responsabilité deuxième responsabilité mooy bu ko dalee mu ci pexe troisième responsabilité mooy mu fexe ba dootu leen dal mhm. est que loolu leer na leer na ñaareel ba ñun suñu parti mhm. ci wàll woowu mhm. ñun am nañ ci xalaat avant ñu dugg gouvernement am na suñu programme fondamental te gis nañu ne lu jëm ci immigration clandestine lu jëm ci ñàkk xëyu ndaw yi bomb la boo xam ne bu éclaté mën na lor réew mi moo tax nañu fexe ba ndaw yi ñu tàggat leen tàggatu tax ñu mën a am xëy waaye loolu it su fekkee ne économie réew mi dañ ko yemale ci ndakaaru mun na indi loraange pour ñi nga xam ne dañ nekk ay ndaw nekk ci kaw gi nekk ci tefes yi nekk ci napp gi nekk ci càmm gi te amuñu koom bu tax ñu mën a sutur la fa ñu dëkk mm-hmm. am nañu fi nangu toog. rawatina ñi nekk ci napp gi. moom rawatina ñi nekk ci napp gi parce que ñi ci ëpp daanaka euh, ñoom la te loolu xam nga li ko waral yenn accord de pêche yoo xam ne ñi ngi koy def te ni ñu koy defee daanaka réew mi du ci gis boppam ndax bu ci doon gis boppam jafe-jafe bii du am tey. foofu itam Pape il faut que ñu wax ak Sénégalais yi. Mhm. man gëm naa ne ñi nga xam ne ñoo dem ci géej gi te ñi nga xam ne ñoo nekk ci tefes yi maanaam. nappkat yi gën cee bari. Mhm. xam man lu tax ma gëm ne euh, lu tax ñu gën a bari ñoom man jàpp ma ne c'est parce que accord de pêche yi moo tax. Mhm. parce que sans les accords de pêche am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jaar yeneen voie demuñ géej nappuñu ñu ngi jaar yoon yi jël Mauritanie jógee fu nekk dem euh, euh, ba Libye pour dem Italie dama foog ne ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi ak xale yi nga xam ne dañ xam géej pour man. seen ñimi géej ak seen xam géej peut-être moo leen di woon ne mais ñun gaal yi ñuy dugg ñun il nous arrive fii dem ba Angola mm-hmm. dañuy toog dugg ci gaal def weer ci géej gi di wut jën mm-hmm. ku mel noonu boo ko gaal a ngi nii fii ñu jëm euh, île Canaries la wan ko diggante île Canaries ak senegal nu mu gàttee par rapport ak diggante Sénégal ak Angola fitam day jàpp ne moom li mu daan def rek lay def loolu laa foog ne moo tax mu gën a bëri ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci tefes yi waxuma ne maanaam pêche bi euh, nërmeluwul mhm. mais pêche bi li ko nërmeel plusieurs facteurs la mhm. gis nga accord de pêche yi ñuy wax maa ngi fàttaliku 2006 foofu tam il faut que ñu rendre hommage président Abdoulaye Wade dañu rendre ko njukkal dafa ñëw moom mu bloqué accord de pêche yi remettre ko cause parce que boobu jisoon na ne arrangé wuloon peut-être Sénégal ci niñ ko doon doxalee ñu def ci quelque diir mu organiser li ñuy wax résistance pour ñu bañ a signer les APE maanaam les accords de partenariat économique ji mm-hmm. nga de pêche yii nga xam ne mooy coow li dafa bokk ci accord de partenariat économique yi wàllu napp benn pàcc la ci mm-hmm. waaye itam il faut ñu wax Sénégalais yi accord de pêche boobu lan la mm-hmm. parce que dañuy wax nii woy suñ jën yi suñ jën yi accord de pêche yi xam nga yeen jën la concerné ton ak merlu noir bateau yi nga xam ne ñooy napp quarante cinq bateaux d'après accordu Union européenne bi yëpp sauf deux pour ton la deux yi mooy pour merlu noir te ci accord de pêche bi dañu wax ne ñaari espèces yooyu nga xam ne ñoom la gaa ñu war a napp bato yooyu Sénégal nappuñu leen mais aussi nañ buñ fàtte ne géej gi li ko gën a yàq réew mi dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañuy dem lëkkaloo ak waa bitim réew am benn société ñu ne société elle est sénégalaise fekk boo demee ay prête-nom lañu wala ay partenaire lañu. ñuy ñëw di napp ñu jox leen ay licence ñuy napp li nga xam ne te ñooñu la ñuy napp bokkul ak temps yee. ñoom ñu ngi napp. d'accord jën yi nga xam ne moom la pêcheurs yi Sénégal yi doon war a napp. ok alors kon